asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi di ko sant si yéen fii ba tey mooy fi daje benn góor góor bi xëy na dara yi bokk na jotaguñu woon mën nag waaye incha allah ñu ngi leen góor bi di leen ñu ngi laajte kër gi ak seen kër tabarakallah mel na nga euh, mbokku taalibe kooku. waaw fii laa defee sama lépp. alhamdulilah mel ni tabarakallah dañu euh, fi ñu nekk tey ñii ci kooku fii moom mooy fan fan ci kooku ban barab ci kooku. fii mooy garab. garab. mbaar mii nekk nii tey. Mhm. avant mu fi nekk garab gi moo fi jiitu. Ah, ngay seen ginnaaw. waaw ah. sëñ Ahmad mhm. daan toog. Mhm. day jëkk jëkk woo kaa ngi yëpp ñu toog. mu ñëw mu yaakaar ne lépp la ñuy doyee mu ne kii diw téyelal kii diw téyelal kii diw téyelal kii bu ñu téyelantee ku mokkal ñu bàyyi la ko def ku mokkal ñu yóbbu ko daal maa ngi la ko defe tey di mbaar mi la ko fekk si waaw kon mbaar yi moom man moom mooy mooy fii fii ci gannaaw fii nii añu fi ne nekkee fi ñu daan non Grazie.

ñëpp nag leen jaar fu leen génne mboolem koy gis ci réew tey jii ku dox mu mën ko moo ko fu mu mën ko moo ko rek njaboot ñëpp la ko fa kon jén ngeen kooku mooy sang bu tëdd yal nañu ko yàlla fayal yàlla dolli ay leeram tabaraka allah kooku mooy Cheikh Abdou Sall waaw kay ah, kon sama yi jërëjëf dafa comme jóge yéen a ngi jógee mën ko fii jéego yi ngeen jéego ñëw fii ngir gëstu xam-xam ngir gëstu lu baax yàlla moom fay yàlla yàlla fay ah. waaw wama arsalnaa min rasuulin illaa bi lisaani qawmihi liyubayyina lahum wama arsalnaa

junub bi laa am seen kër kon xam nga junub bi laa amoon tabaarakallaa soxla yàlla waaw kon fii rek nga mën a ñëw lu dul lii nag tabaarakallaa duñ si dox asalaamaaleykum wa rahmatulah